di rafetlu sa teewaay di nuyu l'ensemble zone 7B di nuyu so mbokku haalpulaar yi mi salmini on onon banndiraaɓe haalpulaar en jaaraama allah jaaraama e miɗo ɗaɓɓande duwa kala to biɗɗo mbimi mbimami goni yo ɗaɓɓane men duwa min heeɓi combat le 17 décembre ñaagane men allah dokku victoire belɗo e dow cukalel ngel jeenkere Eh, di nuyu sama mbokk njaago yi di nuyu sama mbokk joolaay yi soose yi bambara yi bépp ethnie bu nekk Grand Yoff rek bu nekk zone 7B rek rawatina waa Ndakaaru eh, cëddeem yàq jëf nguy salaat ngot di sàkku ñaan ci ñëpp bàyyiwuñu kenn di kontaan aussi ci suñu parrain bi di kontaan aussi ci suñu sponsor yi xam nga ak gars yi ñuy jàppale ñoom Papi Ndiaye comprendre nga ñoom eh, am sàll ñoom tiijaan xam gaa yëpp ñu ngi kontaan ci ñoom di nuyu xam suñu ñi nga xamante ni ñooy jàpp ci làmb yi ñoom aada Baye Gille Samba comprendre nga di nuyu gaa yëpp daal di leen ni ñun moom wax dëgg yàlla nekk nii ay ay dernière ligne daal lañ nekk mais lépp nice. ayca <laughs> Zarko nga nekk ci préparation combat actuellement nii dañuy meñcee rek mais pare nanu mhm. dañuy meñcee nii rek. Mhm. amatul lenn loo xamante ni. ñu ngi koy ut muy lu metti non non non non nañuy meñcee rek eh, am njaay joxal jóob rek jarul muy bëri. Mhm. tuuti rek yee. Eh. Mhm. Zarko gisoon nañ avant ngay jël jën kayre guy gi nga bëggoon a bëreel loolu antuwul nga mujjee jël jër kayre pourquoi choix bi nga jël jër kayre. waaw c'est parce que xamoo man wax dëgg yàlla comme ni ma ko yàgg waxee rek mënu ma jógee extérieur ñëw Sénégal yàgg def sama lépp ci làmb ba pare ñëw toog di xaar ay mbër ñu tànn ay yoon naan damay bëri kii wala wax ju bëri. dàgg sante di góor man du ma góor buy dàgg sante di jottali wante comprendre nga man danga may mën nga ñëw duma ma ma toppaat la sonal la nga jëlaat ma duma ma ma nangu wàccee xam ne yaa ma mën mais ñu bëre benn yoon nga gañe ma rek pour yow yaa ma mën noo nax nga sa bopp Balla Gaye bëri naag ak Lo ñaari yoon moo tax déggutoo fenn fu Modou ne Balla Gaye Eumeu Sène daan na Modou Lo eh, daan na ñaari yoon déggutoo fu ko Balla Gaye wëree yaa ngi comprendre bombardier ni même chose mbër boo ko mënee da nga koy daan daanaat ko daanaat ko ñu ne kii yaa ko mën mais benn combat rek nga bëgg ne yaa mën noonu man pour man loolu dafa tuuti. pour lan nga bëggoon a jël ki nga xamante ne mooy guy gi. waaw mais parce que dafa ma ameel revanche dañu no du revanche sax parce que dañu njëkk a bëre mbapat tournoi du souvenir ma daan ko. ñu looloo taxaw suñu combat ñu bëre ma ñëw ak excès de confiance parce que bëre woon nañ ma daan ko ma ñëw ak xam fugg comme jeune jeune bu fugg daan benn nit benn yoon nga ñëwaat pour man loolu mooy amaat ma ñëw mu daan ma mais nag xam nga waroon na des combat clarification mais nanguwu ko garaawul dañ koy nangu ak philosophe dem utiwaat yeneen mbër parce que du moom kese moo fi mbër. loolu kese la. Zarko yaa ngi jël Diène Kaïré bëreegul bëreegoo moom nga ñëwaat jëlaat ñaa bu ndaw pourquoi nga bëgg a wàcc ci xale yi di di leen jël di bëri. waaw mais xanaa moom loolu làmb dañ ma ji surtout jeunes yi nekk ci làmb ji dañ ñooñu dañ ma ci war a ñaanal yàlla seetlu yi ci làmb yëpp dañ ma ci war a ñaanal Samba. Samba wuyul ma lii jeunes yi ci làmb ji yëpp dañ ma ci war a ñaanal. parce que man maa ko njëkk def nekk euh, tenoor bu ñëw jël ay xale may leen chance. moo tax gisoo làmb ji fi mu ne ni mu ibbeekoo léegi léegi mbëri mag yi ñooy laaj mbëri ndaw yi loolu kese lañ ci jublu woon pour làmb ji ibbeeku te ibbeeku na làmb jaa ngi dox mi ngi neex loolu rek lañ ci jublu woon. mais dañ ne Zarko dafa bëgg a noggatu xale yi wan moo mën xale yi moo tax mu wàcc. mais xale amu làmb ji xale amu fi de ñun waaye ñun ñëpp a maase ñun ñëpp a maase ay teel teel a bëri la rek ñun ñëpp a maase mhm. Mhm. ñun ñëpp làmb ñun ñëpp a maase kenn magul moroomam mhm. dañuy wax rek. préparer Diène Kaïré préparer Niang Ndaw metti na wala. non wax dëgg yàlla nag méttiwul ko parce que ñun xam yàlla dafa def dañu tàmm entraîné mise entraîné moo tax lépp lu ñuy entraîné rek dañ koy teg ci yoon. mais nekkul loo xamante ni sonal nañu de telle sorte que mun nañu emporter wala mu yóbbu ñu benn excès de mentalité bi mënul nekk. si tey lañ gën a xam ni ñuy entraîné bu ñu amaatoon yeneen ñaari avance ci kawam sax dañ koy jël. non billaay wallaay bu ñu ko amaatoon dañ koy jël ragaluñu loolu. moo ñu fi indi moo tax ñu ñëw ñu jóge Europe ñëw. te duñ ci daw dara. pourquoi booy def signature contrat di wàññi booy yi quoi ci wax ci fit maa la gën a ñeme pourquoi non du du question wàññi sax du wàññi dañuy xam dañuy dañuy dañuy jaay suñu bés ci loolu aussi xam maa ngi ci leeral benn benn business rek pour gars yi xam ko euh, ñun làmb loolu lañ ci am comprendre nga parce que boo déggee Zarko euh, produit produit am jar c'est parce que euh, moom làmbam show show bi day neex comprendre nga te am na amateur yoo xamante ni soxla wuñ Zarko bëre daan de soxlawuñu sarko tuus soxlawuñu Zarko tuur soow li ñu soxla mooy na Zarko euh, ñëw signature soow jaay parek xam nga coow li bëri loolu moo leen ci neex comprendre nga am na ñoo xam ne sarko tuur soowam am na ñoo xam ne sarko tu watu ndel bi ba ba ba diri bopp mbaam bi ku ci nekk ak aspect bu la neex ci Zarko loolu kese la moo tax mais du question dara dañ demoon pour jaay suñu bés rek quoi loolu kese la. Mm-hmm. gis nañ Zarko say journée stade bi day riir Zarko lu ne lay indi yaa ngi wax ci côté ndel bi ñii ne bi lañ la toppee ñii nga xamante ne bopp mbaam lañ mais est-ce que mën wax ne jour combat la di sa di <laughs> Arsenal bi du manqué. du manqué <laughs> Arsenal complet laa yore du manqué <laughs> dara du ci manqué. billaay léppay ñëw loo xalaatul sax day ñëw. yu gën a garaaw am na yu gën pire yu ñëw. non kon kon dootul am surprise bi dootul neex. am na yu ñu daajeegul ci paquet bii laay walaay lu leer laa la wax sa waay mun na mun na xaar sax bukki ci stade bi bii laay lu ne mën na ñëw ci stade bi gayndeeg lépp mën na ñëw ci stade bi na xaar lépp mm. arsenal bi kay day complet mm-hmm. dara du ci manqué. ayca <laughs> mu nekk lu am solo Aïssa ki mooy ki nga xamante ne mooy Zarko la grand champion borom Grand Yoff mais jël na nag combat boo xamante ne nii. combat bu nar a neex la la di seet ndax nee na Arsenal bi lépp ñëw li war a ñëw yëpp sax neen du ko wax mais dina ci ñamal tuuti après bala ñoo tàggoo ay ca Zarko ñu gis keroog seen signature contrat bi da ngeen dem bay xeex ci biir signature pourquoi nga ñëw ak fugg te yow li nga yaakaaroon peut-être ñu bari nee nañ foogoo ko foo da nga ko foogoon ne kii mbër mu tàppe la mais danga nga ñëw moom mu ñëw nga taxaw mu taxaw nga samp jaag nga nar a xeex ak moom ta arbitre sifflé waaw mais loolu la amateurs yi doon xaar amateurs yi loolu lañ doon xaar xam nga Zarko jóg gëdd Diène Kairé ñu xool riposte génn Diène Kairé nan lay riposté ak ndax Diène dina taxaw ndax Zarko euh, Diène am na fit bi loolu kese la kon donc loolu euh, loolu foofu loolu ñu doon xaar ci bés bi ñu ñëw indi leen loolu xam nga pour jox leen lëwal comprendre nga léegi mu xaar mu des deuxième bi ak troisième bi donc euh, loolu kese la amin amin yaay booy loolu kese la donc nekkul loo xamante ne xam nga pour salte làmb la wala pour yàq deru làmb wala noo noo non non. ñun on est on est on et vacciné te ay kilifa lañu kon donc ñun dox man Zarko boog du ma doxuma ci lu yàq làmb joxuma ci ci lu yoo xam ne day saltel deru làmb man làmb chaque fois damay bëgg lu nice muy muy muy génnee image bu rafet moo tax man chaque jour dama mus a défendre làmb kon domb du donc man xalaatuma aw ma jotu naan damay yàq làmb wala may def lu yàq làmb aw ma xalaat boobu sax mais mënta ñàkk ça ça fait partie sur notre contrat ci contrat bi la bokk loolu ci contrat bi la bokk donc foog ñu def ko dañ koy def mu moo loolu moo waral lii tey coow li bëri na lii lañ ci bëggoon comprendre nga àddina bi ñëpp di ci waxtaanee làmb ji lii lañ ci bëggoon mais jóge jëlee ju intention wu yàq làmb wala intention gaañ Diène Kaïré wala Diène Kaïré gaañ ma non non ñun ñaar ñëpp dañu doon show rek loolu kese la naka nit ñi jàppee noonu que ñu xam ni nekkul loo xamante ni dañu bëggoon meluñ soxoruñu sax man du ma xool nit di ko def metti loolu yëpp non nice <laughs> sama xel dal na non garaawul loolu dama koy denc dama loolu xoola da nga ciy def code éco ko. non loolu du ma yee non code ko mais yow Zarko xam bi nga nattee keroog bi booy yee code la sama sec sama secret la du ko jaayee. man maa koy codé man. no ko codé de. non dinaa ko codé. <laughs> kooku dama koy codé. na am na. non am na doole macha allah wér na na ñëw ak jaamu rek ci <laughs> fay dara naaj fii bi bu yaa ngi nice <laughs> non eh, mi ngi nice non nice kay nice waaw baax na si moom <laughs> mais man baax na si man. état boobu dara ne keroog bi ko nattee amul dara lu waay loo leer ne kii am lu wàññeeku. dañ koy lekk mais tranquille <laughs> ngi nice lu leer laa wax. la man li ma bëgg la fa indi. Mm-hmm. moo man la li ma indi li ma bëgg la indi. yee pourquoi yow bari ngaa bëreeg adversaire bu signature contrat amee nga koy natt di ko wàññi di kii yooyu noonu pourquoi loolu loolu sa lug la wala. man damaa dëgër de. Zarko daa dëgër de. dëgër këj. laay lay la ñu naan góor dëgër ay mbala nee na ma Zarko yaa dëgër. bii laay walaay booy pare gu ñoom de benn benn laa leen di di leen cons. booy non loolu laa bëgg nag loolu laay wër <laughs> ndox booy ñoo yor li ma bëgg. booy nga doon def aaru kii ba booy dañ yow booyee may fay kenn du ma yàqal xale yi xale yi dama leen di sàmm fukki loxo ak juróom kenn du ma leen yàqal ndox ñoo may fay. pourquoi mënoo yéeg. si kaw dañoo bari si kaw bëri si kaw cinq personnes fa nekk di. Eumeu seen tafaatin Tine Lac mutlo ñoo ñëw fa nekk di wala dafa am keneen ku ma xamul. Balla Gaye waaw ak bombardier six personnes ñoo fa nekk de ah lan ngay gisee yow eh, ku naan ku naan saam ñaata ak ku naan benn ñaata xale yee gën a sakkan ba nañ ma bàyyi ma jël ci xale rek di coof rek am njaay joxal jóob rek mhm. coow di jëm. ay te mën nañu ba jour combat lan nga mën nar a andil. jour ba lan nga nar andil ki nga xamante mooy sa adversaire. taw feex kay. ne am na ci. sama yow ñun ay bàyyi fa lan de yii yëpp dajiy xew. demal la sama adversaire. moom daal xola yàlla na ko yàlla indi ci jàmm ak wér ak wér lii ak may ko waa Medina yëpp ñu wér sañse lu rafet ñëw toog stade ñu bëggal leen man ak sama adversaire 18 heures et demi arbitre sifflé ma dox ci kawam jàpp ko duma ko daan ko ñibbi si ñu feete ko ci biir Grand Yoff allahu rabbi bu neexee Seydina Mouhamed sallallahu alayhi sallam sama doom. est-ce naan ndox. ah doo xool. mais xam ne bii gën a nooy bii moo gën a nooy. pataasu mbooro la buy tàng muy bàyyi. billaay yow dangay ngay togg xam nga pataasu mbooro ngàndil la def mais buy tàng muy peer <laughs> luñ ma sama noos lañ waa mi côté bële waa wet bële sama noos lañu dégg ma ne ko sama noos ngeen ay français lañu <laughs> bu kurba ñi taxar naa si dañuy gëm. <laughs> mais man nag man ay kuur lañ ma doon dóor de kuur bopp <laughs> ay loxo nii daara dérangé wu ma de non dérangé wu ma kuuru kuuru ku ku jéen keere kuum bu mu waree sonal kon man ne sa du ma bàyyi làmb ku jéen affronté naa ku yu ko gën a puissance gën ko rapide gën ko gën ko sec moom kuum bu ma naree sonal ragal naa ma bàyyi làmb moo gën ak fi ma jëm man. ku wujjeen war ma sonal kon fi ma jëm du ma fa egg kon naa baay non donc ban del bët lay dal. non munu dal. jë jën munu ma nat munu natta man ab lébu ma munu ma natt ba am ma munul nekk te man fu ma ko nattee dama koy am. jën gaaw gaawul dafa yéex pata la pata su mbooro la dafa yéex. góor du yërëm góor man pata du ma daan jën dijj du pa dijj dëgër ko gën de. mais ñi wax naan côté bëre bi bu dee bëre bi jën kayre moo la dàq bëre bu ma taxee sama bët sax dama koy jàngal bëre. bàyyi li ngay def yow. doomu loolu moo tax mu am fa coow loolu mais ñun duñ doom mbër de waaye lijjantiwuñu doomu mbër eh, ñun sël dañuy dem. Eh, lijjantiwuñ ne eh, ay maama di maamam sax nekk mbëri coono ji man yooyu dawul sama yaram man fii laa jàngee bëre fii. gis bi nga gis nii. ba la woon. moom garabu dóobaale xale yi xale yi dëgër bopp yëpp fii lañu foowee yéen eh, eh, ñi ñi feneen yëpp ay français lañu eh, mais fii nii ci digg njàngatang bi ñun fii lañ juddoo ñun kenn ñu wax ay waxu ragal ak ñeme walla amuñ xa xamuñ loolu sax. arbitre génn seen diggante loo ko nar a yem. waaw ah xeex bu tàng jër. waa yow. yow looy wax nii yow da ngay laajte ndax Serigne Touba Mouride la. yow da ngay laajte ndax borom daaru eh, borom daaru Mouride la moom ngay laajte. ndax man ñeme naa taxaw xeex ak jéen jéen kere. waaw yow tarantam ñu leen tegee ci jour bu ñu xeex trente jéen leen tegee ci jour boobu noonu ñu xeex man ak ñoom kese man kese ak ñoom trente. yee man xeexu jéen to yóbbuwu fii impressionné wu ma sax ci xeex wala ci benn ci bëre du bëre bu may yorul bëre bu ma jaaxal yorul xeex bu ma jaaxal yorul vivacité bu ma jaaxal non non non non non non man athlète laa athlète. man du ma du ma comme gars moom xam nga nee na euh, kii la sportif la d'accord am ko koy nangul mais man athlète laa athlète am nga athlète ak sportif du benn. non c'est différent man damay nelaw sax di entraîner yàlla seede na loolu. non mu bi sama noos la non moom du ko teg ah, mais gauche bi non du ko def papam du ko nangu daf ma xam dafa xam suñu foor jaar na rock énergie papam ñam na rock énergie du ko def non gauche bi kay bu ko tegee dama koy dóor mu wàcc kooku sama noos la <laughs> ndax la muy teg moo ma arrangé. <laughs> Zarko jéen ñeme na dóor xam na fi muy dóor te bu dóoree ku day na. dama ni la ñeme dóor du wax de ñame dóor du wax de. gis nga ponkal loo bëri doole bëri doole buñ la laalee point bu ndaw rek da ngay nelaw gis nga lii buñ la nee nii rek ci mâchoire rek mun nga nelaw kon du doole dóor du doole point la yee dóor du doole point la yee mais ñuy wax ne Zarko wax rek la am ci làmb ji mais bu dee bëre Diène Kairé moo ko ko dàq bu dee xeex Diène Kairé moo ko ko dàq loolu ñooñu lan la nga waaw ah, mais moom ñooñu seen xalaat lañu wax ñooñu ay supporteurs yu jéen lañu. non ah est-ce que laajte est-ce que waa Grand Yoff fa nga wax. non micro trottoir la rek. non micro micro micro trottoir Medina kay ah, Medina li neex jéen rek leen ñuy wax waaye ah, boo defoon fi micro trottoir ragal naa doo ko eggali <laughs> jéen lim ci am moom mooy loolu dina ko jël na ci am coow na ci am xaalis xam nga après na dem wéeru quoi bàyyi grand bi eggali. moom am na temps moom xale la lu muy yàqamti. noom dafay may garaam garaam eggali yoonam. moom mu jël moo après moom mu jël yoonam parce xale la moom il a l'avenir devant te man j'ai pas d'avenir devant moi moi j'ai que le temps et le temps foog nga daw uti ji ko. mais yoon yee. man de musuma ñaan man moom sarax ndongo rek wala mu tibbag dooleem kese waaw moom koy laara bi laa laan dinaa ko wax boo dëgëree bopp. ma indi sama sama sama sama doole jaay doole jëlee la fa dem sama yoon kese. loo jéen li ma koy wax mooy que ni xam nga eh, moom daal dama koy ñaanal na pare daal parce que bëgguma ji jógee ñi naan ma pare naag parewul moom na pare à 100 pour cent mais état bi ma gis nii ba tey des na. Ah, des yow nga natt ko ba xam ne moo waaw dafa des du état boobu mooy bëri Zarko. ko bi mën a la nax de Zarko. non mënu ma nax. non parce que man dama mobile man dama souple. man dama dama moom sama yaram dama mobile dama souple du ay pata wala dijj wala ngande moom may sonal ci bëre ñun Rock Énergie jàngaluñu dijj jàngaluñu yëkkati weñ ba neewi jàngaluñu loolu dañuy jàngal bëre ak oyof moom sa yaram yee jóor bu jéen bu taxawee mun naa ko dóor cinquante ku génn ci gardam balaa muy balaa muy riposé wallaahi azim yàlla seede na loolu bi ma gis gisoo ko suñu face bi man maa fa nekk di njuug di wàcc ba ci suuf mais moom du wàcc parce que rythme bi ma ko téye du moo topp yee parce que mun na ci jëlee blessure ndax poids bi mu jël. yee bokkul bu ñu simee ko ngeen koy xam waaye bañ dem stade ba simee ko nga xool. kii mais loolu mais xam naa ko. non yow gisoo bi ma ko téye benn loxo laa ko buuxee mu arrière dem taxaw fële. waaw ah, mais attends booy nañu nañ booy xam lu ñu war a def nañu entraîner naturel entraînement naturel dafa baax yow xoolal Zarko ñaata at macha allah. yaa ngi koy ba tey yaa ngi dégg musul dugg stade ñu ne yaram bi yaramu lan la tey te du mus am parce que il est naturel Rock Énergie naturel lañ ñuy jàngal santu ñu dara mais booy dañuy bëgg maanaam egg fenn fi ba jël def seen yaram loo xam ne bokku ci yooyu noonu après dalay sonal wallaahi azim. moo booy yoo xam ne yaramu xale lañ yor comme ku ci mel ne John Kayra yaramu xale lañ. non koy def. non <laughs> waaw. waaw li ñuy def seen yaram nag day jaay <laughs> li ñuy def seen yaram yi day jaay Amérique. non non yaram de entraînement bi ñu bëgg laa la wax de bu ñu ko bëggee am seen yaram yi dañ koy am loolu laa la ah, ah, lu metti nag. booy dañuy guux rek. fekk yow ku nekk bee tax eh. góor bu ma yërëm yàlla na dee. dugg safara. <laughs> waaw baax na déggoo de. Mhm. góor bu ñu jaxarloo nga yërëm ma. yàlla na nga dee ci guddi googu dugg safara seede yàlla man boo ma jekkoo rek lekk ma ndax man bu ma la jekkoo moom du ma la mooy yee man bugguma góor gu ma déggoo ma ni la góor du yërëm góor sëñ bi boo yoree sa jàmm ak sa salaam danga koy jël lem ko dugal ko sa waxande yóbbu ko jox ko sa maam mu gas ko ba mu xóot suulal la ko ci ron lalam dencal la sa jàmm man soxlawu ma jàmm waruma ko su ma mënee rek na ma lekk mais man su ma ko jekkoo du ko mooy dañu fay dañu fay xaalis pour ñu dee yaay booy man dew ma foofu pour jën di ma daan wala mu may dóor ay deret di génn yooyu noonu de non non non non c'est moi qui yee man maa koy dóor maa koy maa koy daan bul sonn waaye ah, yow tamit non mënu maa jekkoo fu may jekkoo man man may ceddoo komi biɗo haalpulaar ko min woni bakan so jagi mi jagat so jagaani mi jagat saari mi arat saaraani mi bandam si bi nangi ma yo seel maaɓe njaltu haala ka gasi billahi wallahi doo sax doy doo laal suuf mooy yow tamit mystique mystique naam dañ ma tere wax quoi xam man sama yaay ma sonal ndax daf ma freiné ci lu bari mais man dañ ma jàpp si mystique de musique mooy loolu noonu man duñ ma jàpp si musique ndax li ñuy fay léegi laay fay de. léegi yow yàgg na bu njëkk ba làmb damay toog yi di ma tax rek di ma liggéey ba bëgg a dee ba ma mandi ñëw si stade bi may def yëfu dof rek di tëñëx tëñëxi ñu jàpp ma daan mais léegi da ngay fay million ma fay ñaari million laay lay la laa boo ma liggéeyee ma taq la ba buur la man léegi caaxaanu ma man léegi yow nit boo ma tooñee sax ma liggéey la. nit. boo ma tooñee sax ma liggéey la laay lay la laaw bul xalaat léegi damay damay fay sëriñ comme ni ko nit ñi di fayee ku ma liggéey ma liggéey la ku ma yàq ma yàq la waaw waaw bul sax sonn laay laay la laaw léegi kay amul comme que dëkk bi noonu lay doxee kay ku ma liggéey ma liggéey la ku ma yàq ma yàq la bul sonn ah yii làmb ji boo ko deful dañ lay rey dañ lay ray suul la léegi ñaata mbër a dem léegi su léegi nag ñëw sa naq nag sa ñëw ñëw sa sa dëj sol ay ay ay ay jasneer di xeeñ parfum yi neex naan pour ren sama waay la du ma ko def de xaaruma fi kenn ku ma liggéey ma liggéey la ku ma xonjom ma xonjom la kese waaw cottante rek ba mu saf <laughs> cottante ba mu saf <laughs> lu waaye def ba fayo <laughs> dafa leer moo laay la laa làmb fi toogee di waaye di booy dañ lay saraxe de dañ lay saraxe fat-fat man nag kenn du ma saraxe du ma saraxu kenn. laay lay la la liggéey rek lu liggéey di maye duñ ko ñaan góor teel a ca teel a yeewu bala ah mbay wandeelu foo ni entraînement dem nga ba ñëw dof Zarko ñu ñëw ci li nga xamante ne nii mooy côté waaw da ngay cag-cag Zarko ñu ñëw ci li nga xam côté préparation bi est-ce que Zarko côté mobilisation bi ndax promoteur bu tëgg combat bi ku ko mobiliser la bëgg est-ce boobu yaa ngi ciy bàyyi. non yow boo ñu waa Medina waa fii ñëppay ñëw. non ñoom buñ te def loolu duñ toog. toog. parce que parrain bi Grand Yoff la dëkk Ibrahima Ibrahima Seck no te day jënd ay bloc te Zarko loolu lay jooy. ku koy jëndal ay ku koy jëndal ay bloc pour mu pour mu yóbbu ay nitam ku koy toggal regroupement parce que Grand Yoff dafa dafa dafa dafa néew dafa néew autorité dañoo néew autorité Grand Yoff dafa néew autorité jeunesse bi dañoo néew ñu leen jàppale loolu xam naa si dara parce que maa ngi koy dundu comprendre nga te loolu kese mooñ ñu dese mais parrain bi bu demee ba dëkk Grand Yoff ñu ngi kontaan ci moom loolu bu baax a baax ñu bëri daan notre fii pour une première fois ñu jël parrain bi def ko doomu Grand Yoff loolu c'est fierte fierté et c'est honneur et c'est un combat que qu'on qu'on qu'on pas droit de faire une petite erreur parce que seen un combat sacré donc di ci ñaan yàlla bu baax a baax yàlla defal ñu ci ndam comprendre nga ba ñu ñëw feete ko biir grève ak euh, suñu parrain moom parrain bi tamit ñu koy sas mu xam mu jëndal population bi billet xam nga defaral leen ay regroupement comprendre nga gars yi añ ba suur sangu sol lu rafet dem ñu ñëw dem stade ci njekk comme d'habitude ñu bëree daan xam nga ñibbi si ñëw féete ko waat ci jaamu. sonn naa gëmmantu naa tilim naa bëgg naa dem sangu di sant ñëpp bàyyi ma kenn di gërëm ñëpp surtout écurie Grand mbooloo mbëri yi entraîneurs yi dirigeants yi xam ñoom Badara Kebe ñoom Jibi Samb ñoom Issa Dieng ñoom Mor entraîneur ñoom mobile Mout Seck ñoom Père Soudou bi fa ñëw tey ñoom Grand Dia ñoom Omar Ndiaye ñoom mbay ñëpp ñu ngi leen di sant Isaac. di leen sant di leen gërëm xam di kontaan bu baax a baax seen taxawaay ak seen compréhensive ak ci ci aspect bi ñuy yóbbu écrit bi aussi di sant fi may mujjee rek mooy di sant sama maam bu baax a baax a baax ajaratu mère Sall ngaari lamtooru buuru gere yàlla na fi yàgg te wér ndax li yëpp moom la quoi eh, di la ñaanal bu baax a baax Sall ngaari I love you Sall ngaari jaayëf te fi seen love jaayëf ayca merci beaucoup Zarko le grand champion borom Grand Yoff di ko kontaane bu baax di ko jaajëfal di bég ci moom di wax di leen fàttali journée bi rek la 17 la incha allahu rabbi moom ak ki nga xamante ni mooy moom mooy Diène Kayré ah, Aïcha laa ci àndaloon jigéen ju mën góor di kontaan ci bu baax nee naa saa su nekk damay kontaan bu baax a baax su ma waree jàkkaarloo yow bég naa ci ñëpp ziar naa ci ñëpp wax beneen yoon ci beneen émission ci beneen numéro spécial laam jërë ngeen jëf